وإحسان إلى يوم الدين. قلنا ولولا نين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسنت الله سبحانهم نميات نتوات تيفي شنيعو جالبي. بس ينفي النفر سنة يوم صلى الله عليه وسلم ولا لأن في أي حديثا. تيموا سيمين تفنى جروم ñentelu xadis suma jumul ñi ñew si hadis jëla tay benen dars bo xamanteni dars bu bes la kiko solo moy abul abbas sahl ibn saad as saidi titru hadis bi mi ngi mi ngi tuddu az zuhd fi dunya mooy deddu aduna jere nañ ci an abis Thank you. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحب يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس kon mooy rawaahu ibnu maaja moo ko solo ñoo jëlee nañ si baayu abbas sahl ibnu saad asaidi radiallahu anhu nee na ab waay dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëggoon nga tegtal ma ab jëf joo xamante ni su ma ko jëfee yàlla subhaanahu wa taala dina ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne njëkk mooy izhad fi dunya da dëddu àdduna boo ko defee rek yuhibbuka allah yàlla dina la bëgg beneen bi wazhad fi ma inda naasi nga dëddu li nekk ca loxoy nit ñi boo ko defee nit ñi danañ la bëgg loolu mooy nas kon xadis bi daf ñuy jàngal jikko bu ama am solo si jikko nga xam ne jikko jullit war na kaa jikko woo muy zuhdu mooy dëddu àdduna ak zuhdu nag buñ ko doon wax ci luga mooy alxalilu fi kulli shay'in mooy lu lu néew ci bépp mbir bi ñu waxoon as sayu zahid mooy as sayul xalil mbir moo xamante ni mbir mu néew la mu tuuti ba tey dañ koy wax al inraadu nga dëddu dara wala adamu raxba ñàkk xemem dara bu ñu waxee nit ki dafa dëddu àdduna mooy daf kaa wan gannaaw ñàkk xemem la sa nekk bu dee ci islaahan bari na ay taarifaat yu bari di wax si yenn rek am ñu ne mooy nga dindi sa xol bi lépp loo xamante ni ay bànneexu àdduna la luy bànneexu àdduna rek nga fexe ba génne ko sa xol am na ñu ne mooy nga bàyyi noflaayu àdduna bii nii sàkkoo ko noflaayu alaxira boo tamit si taarifaat yi la bokk am na ñu ne loo am lu bari bari nga fexe ba bu ko bégee waaye loo ñàkk tamit lu metti metti bu ko naxarlu kon yooyu yëpp si taarifaat ak zuhdu la kon li ñu ciy déggee mooy dëddu àdduna mbirum xol la loo am lu mu rëy rëy rëy rëy si àdduna bi nii bu ko tiitaroo wala bu la taxa bég waaye lu mu rëy rëy boo ko ñàkkee tamit bu mu la taxa saali tant que si niveau boobu rek mooy yow kon dëddoogoo àdduna kon loolu mooy dëddu àdduna ci taarifaat boobu léegi kon est que ñuy wax ne dëddu àdduna mooy bañ a liggéey wala bañ a sàkku alal toog rek yàccaaral est-ce que loolu ñoom dañ koy est que dañuy considérer loolu ne mooy dëddu àdduna kon lool buñ ko considéré dëddu àdduna fekkee dëddu aduna moy ñak liggéey toog rek boba day ak di alquran wax ndax alquran nee wa wabtaxi fi ma ataka allah dar al akhirata wala tansa nasibaka min dunya da nga al akhirah waye nak bul fàtte sa cër ci aduna bi ndax li ngay al akhirah fi nga koy liggéey ci aduna bi kon alquran di jangal nañu ne kon deddu nekul bay ad aduna bi definitivement mais nga jël sa lo xamanteni dana la jëriñ yowmal qiyam kon lool moy zuhd kon diine islam diine liggéey la bu tok rek nga ah man damaa dëbb àdduna rek tok rek ñamé la lool du zuhd kon zuhd ah, alquran wax nañu ne kon fokk nit ki jël cëram ci aduna bi sallallahu alayhi wasallam nee al yadul ulya khairun min al yadi sufla loxo bo xamne ci kaw la fete manam loxo bi joxe mo gën loxo bu fete suf loxo bi jël kon lool daf lay pousser ci nga dem fagu ji do tok rek ya ñu yor la mu waxat ne ni'mal mal salih lil abd salih khalis bu bax de lu bax la ci waju bax da waju bax mom bu amé khalis bu bax rek da koy def ko xamanteni ni fu baax la kon nga gis ne zuhdu nekul ne da ngay tok doo liggéey niki noonu zuhdu nekkul ne mooy sol ay yére ay sagar wala di lekk lekk yu naqari déedéet du loolu yàlla moo ne kulu min tayyibaati maa razaqnaakum lekk leen si yu yi nga xamante ni man yàlla wërsëgal naa leen li fi nekk ci ay lekk yu neex ak ay taar ak yépp pour ñun ñun nit ñi la dañ cee a jëfandikoo ndax loolu yàlla moo ko daganal si ñun mais boo ko xaraamalee sa bopp nag yaa ngi def loo xamante ni yàlla sant loo bi ismi zuhud ndax yonent sallallahu alayhi wasallam moo gënoon a zuhud ñëpp teew daraan lekk daraan naan daraan takk ay soxna moo tax ba mu gisee saxaaba yooyu noonu kii na man dootuma takkati soxna kii na man damay naafee rek dootuma dootuma nelawati kii na damay damay woor rek dootuma lekkati daf leen kàttan ne leen àdduna bi kat fokk ngeen jéer si seen cër bi nga xamante ni moom la leen yàlla jox kon nga gis na yonent sallallahu alayhi wasallam teel naa jàngaleen mooy zuhud kon zuhud du nekkul rek ah bàyyi àdduna bi gannaaw yi gannaaw di def di di tumuraankeloo sa di sol ay sagar lek ay lek yu yu dooy di bu ñu waxee nga ne da ngaa dëddu àdduna loolu alquran kon foog ñi jël suñu cër ci bu àdduna bi sax suñu xol loolu la kon loolu moy zuhud léegi nag lan moo ñu war a dëddu bi nga ci lañ buñu démé demee alquran wala yalla subhanahu wa taala mom moñu koy ñëk jàngal bi ci ñëk moy yalla néna yeen jaamu yalla man dama leena bind wala bindu ma nit ak jinné pour ñu jaamu ma yàlla manam objectif bi tax yalla bind ñu moy jaamu yalla kon doom adam bo xamé né nit li tax ñu bind ko mooy jaamu yalla def na bu ñëwé ci aduna bi ni dana tal leneen lu dul nekk ci poñatom aduna bi tax bam bayyi li gëna tax yalla bindu ko boobu benn la ci beneen bi yàlla mi ñuy wax ci alxuraan ba tey ne àdduna bi àdduna bi day wore ku ko jàpp tamit moom jàpp la bis dina ñëw mu war la mu wax ko ci aaya bi ne i'lamu annama alxayaat dunia laibun wa lahwun wa zina wa xam ne àdduna bii kan ngeen kër kër di ko jàpp ay fooki caaxaan kese la ay fooki caaxaan moom yàgg-yàgg day jeex ay taar taar la di taarlu ci kër yeeg soxna yeeg yére yeeg lekk yépp taar niki noonu di puukarew wala di ëpp palante ci ay alal ak ay doom koo gis tey maa am loolu lay ëppalante samay compte bancaire samay kër samay nangam samay nangam loolu rek lay ëppalante yàlla nag misaalee ko ci benn tool boo xamante ni yàlla dafa wàccee ndox mu barke suuf sa naat ba rafet baykat bi bu ñëwee xool ko bëgg lool ndax nëtax gëm nëtax ak naat gëm naat waaye jékki-jékki yàlla indi am ngelaw taal lépp ba mu mel ni musta am la fa nekkoon raafal lépp ba mu wow koŋŋ ba mel ni musta dee yàlla da tëjee aaya bi nag ne wa man xayaatu dunya illaa mataaul wóorul àddina bi ngeen jàpp nekk ci di sonn lépp da leen war de bis dina ñëw mu war la te kuy xool àddina bi di nga gis loolu da gis koo xamante ni milliardaire daanu ba bañ koy sarax wa bay wala muy dem di yalwani di fanaan ci mbeddi ni koy jox sarax li muy lekk suba ngoon ni ki noonu nga gis ko xamanteni mi ngi nekkon ci mer bu yaram sha allah lu mu bëgg lek lek ko fu mu bëgg dem dem fa waye tay ko sanni sax lalu hôpital ya lu mi lek dañ ko kaa dañ ko kaa lekk lu mi def dañ ko defal kon ko tammi aduna bi war ni noonu nga gis ndaw loo xamante ni yàlla dakaa may dakaa may kattan ak taar lépp moom jàpp na ne moom moom waajagut a dem dee ñëw war mébétam yeeg lam nekkoon yépp daal di fay jëlee te ku doon wax moom ne ko mi amaan na doo doo amaan na léegi nga jóge moom jàpp na ne moom dafiy dund ba si gan kon dee war na ko kon yàlla nee nañu dund bii dund ak wor la ku ko jàpp tamit jàppoo tus niki noonu yàlla mi ngi ne adduna bi bànneex bi maanaam lu limitu la lu ndaw la qul mataa dunya xaliilu wal axiratu xayru da ngeen xam ne bànneexu adduna bi ngeen jàpp bànneex du ndaw a ndaw la te xool dañ ko gis doomu aadama état bi am ñett état bu la mën nañu bu juddoo kooku si faiblesse lay nekk lu mu def dañ ko kaa defal du man dara ba fu muy demee ba nekk jeune di am kàttan mën nañoo wax foofu lay commencé di yëg bànneexu àdduna ndax fa lay doole ñëwee fa lay taar ñëwee fa lay alal ñëwee fa lay commencé di bànneew biir boobu mën nañoo wax gudd bu ko passé mu demaat si beneen dox beneen état dox goo xamante ni day ànd ak ay feebar ak màgget chaque jour nga jàmbat feebar bu bees kon nga gis ne li ngay bànneexu si àdduna bi bu ndawa a ndaw la bu ko defee dee ñëw daal na fay jëlee nga mel ni mosoo fee nekk kon yàlla xamal nañu ne li tax ñi kon ñu war a dëddu àdduna bi dafa gàtt bànneex bu gàtt la niki noonu ñu xam ne àdduna bii nii kër ak ixtibaar la maanaam jàlla dañu fee wàccee pour lan di ñu examiner xool ka nga xam ne dana réussir wala du réussir ku nekk nag si examen bi naa nag sa yitte yëpp war naa nekk nga concentré wu si li nga xamante nii mooy épreuve yi ñu la war a jox da concentré ba nga xamanteni bisab examen ba da nga da nga da nga da nga admet al kaysu man dana nafsuhu wa amila lima baad al mawt ki mus deug deug deug moy ki téla rek la boppam ki tek tankam fi nga xamanteni mom la ko yalla sante ba paré di liggéey la nga xamanteni moy ba sa gannaaw dé moy yowmal kon ñi xamné fi dañ fay wacc yalla daf ñu fay indi pour li ñi examiner xol fi nga xamanteni dana réussir wala du réussir yowmal beneen bi ñu xam ne ne àdduna bii kat lu mu yàgg-yàgg kat day jeex kër la buy jeex dund gi dëgg dëgg dëgg mooy yawmal qiyaam wa inna daara al la hiya al xayawaanu law kaanu yàlla nee na dund dëgg dëgg dëgg dund koo xamante nii moom amul dee amul feebar amul dara kenn mënu ko amee fii si kaw suuf fañ koy amee mooy yawmal qiyaam kon lol lu jara préparer la lu jara wajal la lol ko koy xalat dina tax di nga baye àdduna bi sa ganna wala doo dang ci jël lu dul lu meuna ñak rek nga ci jël waye do su nekk ci si kër kër yi ba mu la sa jaamu yalla gi nga xamne moy essentiel ta moy tax nga texe àllaaxira buñ démé si hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci wone ñak solo aduna ak li tax ñu war ko dëddu un jour musna dox ci ben marché and ak sahaba bi dem rombu ben medd bu dee ba nëpp man mën nañoo wax yonent bi sallallahu alayhi wa leen di yéen kan moo bëgg médd bii nii ci ab dërëm saxaaba yi ne na ko ah yonent bi sax lii kay ñu ab dërëm ñu ne ko lii bu doon dund sax jaraluñu dërëm ndax mi ngi nii dafa am sikk nopp baa ngi nii ñu njox a laa nag ba mu dee ba nekk médd waaw mu ne leen voilà gis ngeen nu médd bi doy dee sa yéen ñàkk solo si yéen àdduna bi moo gën a doy fu sa yàlla kon kër kër si wala mu jaral la da tayle sa alakhirah jaru ko benen bi yonent sa salam fekk nañ ko muy nelaw si ak basang man nañ wax lol bam demu ji manam marke si sahaba yi ñew na ko ah buñ la utaloon lu noy ci tek go xamanteni ni metti sa wala dotul market bi yunus saa salaam ne man lan lay lan lay doye aduna bi man lima ma mel ak aduna moy ko xamanteni masalan da doon tukki rek nek ci ak wayam dox ba gis ab kerr dari di kerlu ba heure dem ngam mu dem manam ni ci bëgg wax ne mom aduna bi amu fi temps boo xam ne dafay nekk di nok di lay waye si mission la nekk day jaar rek jall waxon nok ci benen hadith hadis kun fi dunya ka annaka gharibun aw abid sabil melal ci aduna ko xamante da nga tum rank wala ko xamne da ngay ñew rek jaar ci jall ko bu defé lo ci bopam bi kon yenn xër yi ak yenn lay du ko fu musafa xam yonent bi waxaa si ne aduna bi ni bu fekkone dafa tollu si yalla ni la fu yo konon du fi may ben yéefar di nan tok ndox ci ñak solo aduna motax mu baye yéefar di am lu leen neex ci aduna bi ndax aduna bi tollu yalla wala tollu si yalla lu tolli la laa fu yoo ndax ñak solo gi ñak solo kon yoy yeb dañ ci déggee ne julit bi warul jël aduna bi yeb def ko yitteem waye daf say jël rek la nga xamanteni manu ñak ngir lan defare ko àllaaxiram léegi yonent bi saasam ne bo dund waji na bam ko waxe nak dëddul ci aduna lan moy resultat bi bo dëddoo su àdduna di nga am mahabbatullah yalla daf lay beug te waji lolo don sak sàkk yalla bu la bëggee yalla day wo jibril nako beug na diw yow jibril beug ko jibril bu ko bëggee daa di woo waa asamaan ne len yalla beug na diw beug len waa asamaan boo ko defee mu defal nit kooku noonu ci suuf xabul boo ko defee nit ñëpp bëgg ko lu mu wax lay nit ñi di wax lu mu def lay nit ñi def yàlla da may xabul nekki noonu yàlla day nekk ndimbalam ci lépp comme ni ko xadis ba waxee woon saa bu yàlla bëggee jaamam bi koy nekk bu ko nekkee nekk ay bëtam nekk ay tànkam nekk ay loxom noonu yàlla bu bëggee jaamam bi daf koy defal xusnul xaatima mooy daf koy may mujj bu rafet yonent bi wax na si xadis ne yàlla bu bëggee jaamam bi daf koy dam mu ne assalahu am na fu mu ne assalahu am na fu mu ne istaamalahu ñoo ko mooy lan mooy mun ne daf koy taw fii xal jëf ju baax njëkk muy faat daf lay taw fii xal nga def jëf ju baax doog a faat maanaam yow li ngay mujj def sa kaw suuf mooy lu baax yàlla taw fii xal la nga dee dem aljanna kon nga gis ne yàlla si bu la bëggee loolu yëpp dala koy garanti waxaat ko ne ko wazhat fii maa nag dëddul li nekk ci loxo yi nit ñi boo ko defee yàlla wala nit ñi danañ la danañ la bëgg ñu ngi koy jàngale képp ku bëgg nit ñi bëgg la rek la nekk sa ñoom bu si teg sa bët bi wala bu ko yittewoo bu ko soxlawoo ndax doomu aadama ni ko yàlla bindee mooy dafa xër te dafa dafa dafa bëgg alal dafa bëgg li nekk ci loxoom loo xam ne moom moo koy moom parce xale bu ndaw bi sax li nga xamante ne moom dañ kaa moo koy siisee xale bi doomu moo koy topp waxoon yàlla ne wa tuhibbuuna al maala hubban jamma dafa bëgg alal waxaat fa li beneen aaya zuyyina li naas hubbu shahawaati min an nisaai wal baniina wal qanaatiiril muxantalati min ad dahabi wal fidda kon doomu aadama yàlla daf kaa mooñaaleel mu bëgg alal moo tax képp ku ñëw nag di ko teg sa bët bi rek boobaa moom dalay def dalay jàppee noonu waaye képp ku sori li nga xamante ni moom moo nekk ci ay loxoom rek da ngay gis dañ lay daal di bëgg te nit ñi buñ la bëggee dinañ la dimbale buñ la bëggee dinañ la ñaanal fuñ mën ci toll kon loolu moo doon xadis bi nga xamante ni moom lañ indi woon tey muy xadis bi jàngal nit ñi nañ nañ nañ du dëddu àdduna wax nañ ko dëddu àdduna bu ñu ko waxee waxuñ ngay lekk lekk yu naqadi waxuñ ngay sol yére yu ràpp wala yére yoo xamante ni yu euh, yu baaxul la waaye dëddu àdduna dëgg mooy ci xol lay nekk ndax da nga gis koo xamante ni yàlla may na ko àdduna ak li si biiram boo demee soxlawu si dara loolu mooy dëgg-dëgg zuhdu àdduna bi yëpp si la yàlla may la alal may la may la lépp mais sa bi tout le temps mu ngi connecté direct ak yàlla kon kooku ku zaahid la waaye di nga xamante ni yàlla amul dara mën nañoo wax zaahid la waaye nga gis ne suba ak ngoon xolam ba yëpp ci àdduna rek boo tijjee xolam bi àdduna rek nga say xisa boobu sax jur yi nag la mooy ñaari konca ñaari bur konca ka nekkon ca tahya ak ka nekkoon ca àll ba ka nekk sa tahya yalla may nako lepp ci li bur di am tewul gisu ci dara yalla rek la gis waye ba nekk sa ba amul dara mais xolam ba bañ ya ko boo boko tije ya, aduna rek ci nekk da gis ne kon mbir mi mbiram xol la kon lol moy begi dëggi zuhur kon hadith bi mo moron lol mo doon hadith bi di wax ne tamit liñ ci jàngee mooy sahaba yi ñoo tout le temps li nga daan yittewoo moy lu lay ni connecté ak yalla seen ak yalla subhanahu wa taala mais pas mbirum ali hadis yi fi jang yeb yi di wax aw si wala yéen ma bu nga tegtal ma ci bari lu lay ni jeriñ sen alakhirah, la mais pas wala bu ni jeriñ sen addu tamit duñ fatta alakhirah kon loolu tamit war nañ ko jangé ci hadis bi benen bi moy yalla ya subhanahu wa taala ku ko bëgg mu bëgg la foog nga àdduna bi ni nga bayiko sa gannaaw di ci jël li nga xamanteni lu man ñàkk la rek te lool day fekk nga sukkandiku ci pour défar sa yow qiyam fi nga xamanteni ni la go xamanteni moy mooy sax ga te mooy nga xamanteni ni du jeex bu rap kon lool lañ indi won tay di ñaan yalla lu ci wax mu jup yalla ñu ko yalla boole ñu ci dëng ci ñun la yalla ñu ko yàlla ma zalika alallahi bi aziz salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aballahu ala إلى غير سيدنا إمامهما ميزاك أحمد التجاني